ay liggéeykat yu am fulla yu am fayda yoo xam ni euh, seen jafe-jafe bëri na te lu bëri lañ ko yàgg noppiwaale kon bu ñu fippoo rek day fekk ndox mi dafa euh, tegu ci siyo bi te waru ci woon tegu ba si ba ndox ma tuuru euh, du bomba retardement sax li am mooy ñoom li ñuy ñaawlu mooy directeur des ressources humaines bi taxawaayam <laughs> mais directeur des ressources humaines agent nga comme ñëpp avant ngay nekk directeur yaakaar naa war nga gën mun a am dal xam nooy collabore ak ay nit ba jafe-jafe yu mel noonu ba am ndax ñu ñii bokk RTS tey nekk ci biti suñuy gis suñu ay morom di ñaxtu ci yoo xam ne ay seen lu légitime la ci yoo xam ne seen i mbir la daf ñuy métti donc yaakaar naa ni jàmm dina mën a dellu si anam yi mu gën a gaawee euh, lépp ànd ak dal ñu waxtaan ndax réew mi waxtaan rek a fi am euh, donc jafe-jafe am na ci boîte yëpp waaye bu demee ba commencé génn ci presse bi rek c'est parce que y a donc yàlla nañu yalla may ñu saafara ko te gëm naa ni euh, directeur général bi Racine Talla dina fexe ba woo parti yëpp mooy directeur ressources humaines bi mooy collectif bi ndax mbir mi du mbiru syndicat li ma ci dégg mbiru benn collectif la boo xam ne dañ jàpp ni euh, directeur ressources humaines bi daf leen bëgg a nappaaje te ñu bañ ko donc yaakaar naa directeur général bi na leen woo autour d'une table ñu waxtaan jàmm euh, ni ñooy ndax RTS patrimoine la Sénégal yëpp ko bokk